monsieur Diaw Serigne Diaw ñu ngi lay nuyoo di la dalal. ñoo ngi leen di fay. sëñ bi Diaw yow ngay euh, chef service régional commerce bu Dakar ñu wax tey ci li nga xam ne mooy yëngu-yëngu yu ñu nemmeeku ci wàllum mburu mi euh, tey ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine bi waaye it boulanger yi nga xam ne ñooy defar mburu bi euh, lan moo waral lii di yuuxu yi. waaw fii li ma la ko waxee léegi. da wax naa la ko sànq ci. français mhm. mooy boulanger yi. dañu dugg ci xeex boo xam ne du seen xeex mhm. parce que ñoom balaa ñu doon dugg ci combat bi dañu waroon a xaar ba ñu pare ak meunier yi parce que ñi ngi négocier ak meunier yi mhm. réunion bi ñu mujj def ak meunier donc euh, muy comité de suivi des prix mhm. ñaari ministres yi ñoom ñoo ko présider muy ministre des finances et du budget ak ministre du commerce et des PME directeur généraux yëpp nekk ci donc réunion de haut niveau la euh, pour ñu waxtaanee mbirum farine bi donc moo lay wan ne ne ossature réunion boobu jox rek moo lay wan la fonk nañu secteur bi mm-hmm. secteur bu ñu jox cër la mm-hmm. mais ci biir réunion boobu ñoom waxuñu woon dañuy arrêter production mm-hmm. dañu ne danañu réduire seen production waaw mais ci biir réunion boobu aussi waxtaan nañu ba bi ñu defee ñoom seen simulation def seeni calcul ci biir réunion bi ñu ne ñoom dix neuf mille cent quatre vingt treize defee seen calcul lool lay dikk mhm. te léegi nag mën nañu au de dix neuf mille cent quatre mhm. mën nañ ko indi ba dix huit mille d'accord mille cent quatre vingt treize yi des ñu defal leen ko crédit d'impôt donc ay impo lay doon ak yooyu fa lay dugg mm-hmm. yoo xam ne ñoom waroon nañ koo fay mm-hmm. foofu la ñu taxaw mais léegi ñu war a continuer négociation te ci loolu aussi dañ na leen laaj leen ñu déposer cadre de prix mm-hmm. au niveau de nos services parce que mburu ak euh, farine dafa nekk produit boo xam ne dañ ko homologué kenn mënut a xëy rek yokk ko unilatéralement il faut nga déposer cadre de prix ad ci administration bi administration bi ñu saytu ba xam njëg yooyu ngay laajte jaadu na wala jaaduwul ñu soog la ko mën a accorder mhm. foofu lañ tolloon ci réunion bi ñu xëy ñoom tam ñu daal di arrêté production te loo xam ne waxuñu ko woon dañ ñëwoon dañuy réduire production bi. Mhm. rek loolu la ñu waxoon. waaye ñoom ba ñu yàggee si ma ñëwee monsieur Diaw ñoom ba ñu yàggee. waaw du tey. daanaka bi mooy ñaareel yoon. boobaak léegi boobaak léegi. Mhm. heure buñ ne am nañ jafe-jafe am na lu état bi def yéen bu leen fàtte état bi TVA bi dix huit pour cent la woon état bi yóbbu ko six pour cent ñu ne doyul état bi yóbbu ko zéro pour cent mhm. donc TVA bi actuellement farine zéro pour cent la ñu ne doyul état bi ne leen lu ngeen bëggati ñu ne droit de douane bi encore li ñuy fay état bi dindeeti encore droit de douane bi yóbbu ko zéro pour cent donc ñoom fayetuñ dara mhm. da ngay dem jël bële bi rek indi dugal fay TVA zéro pour cent la droit de douane zéro pour cent donc muy effort yu rëy yu état bi def foofu. kon ñoom ñàkk bénéfice gi ñuy wax euh, li ngeen leen wàññil noonu yépp mën nañoo ne euh, duñ ca dal. ñoom même structure bi ñu indil nii booy calculer def dix neuf mille cent quatre vingt mhm. ñun dañ doon liggéey ci marge deux pour cent ñoom dañu ne avec marge léegi nañ leen defal marge encore dix pour cent. xoola ma loolu parce que aussi ñun tam bu ñuy liggéey dañuy liggéey pour seize million de sénégalais. Mm-hmm. du ñu liggéey pour une partie. Mm-hmm. dañu war a prix yi ngay joxe aussi ñu xoolaat ko càmbar ko ba xam ne jaadu na parce que ñun structure ba ñu doon jaayee ñoom seize mille six cent. Mm-hmm. bañ koy defar deux pour cent la ñu nekkoon ci marge. léegi ñoom bii nag bu mujj bi te jamono ñëpp xam nañ ne metti na pouvoir d'achat euh, consommateur yi xam ngeen ne néew na. ñu ñëw nag indi beneen institut de prix daa dina léegi nañ leen defal dix pour cent mhm. malgré li état bi yóbbu yëpp euh, muy droit de douane beeg TVA bi yëpp zéro pour cent. d' accord nga ne boulanger yi dañoo dugg ci xeex gu ñu moom. dañoo dugg ci xeex bu ñu parce que d' abord yow booy laaj yokk day fekk bu yokku mais lu yokkuwul looy laaj yokk. ah mais boo moytul fa lañ jëm du boo moytu dañu war a xaar xam nga loolu parce que réew du doxe noonu. Hmm. léegi bu fekkee dañoo yokkal ñële nga soog a ñëw ne yokkal leen ma te yokkal leen ma sax du tax ñu yokkal la dañuy saytu njëg gi parce que ni ma la ko waxee laag prix homologué la waaye ñoom dañuy le 17 bu fekkee ne yéen euh, transmettre ngeen information yëpp le 17 la ñu waxoon la ñuy grève ñu jékki-jékki ñu xëy rek ñu ne dañuy dem léegi trois jours. dañoo bàyyi profiter ci occasion bi daal. voilà léegi ñoom xam nañ ne comme dafa am arrêt production. Mm-hmm. ñu ne nañu profité ci arrêt production bi ñun tam ñu dem ci grève parce que bu fekkoon ne arrêt production amul ci meññee yi ñoom bu ñu demee grève du saf kenn. Mm-hmm. parce que dem nañ fi demati kenn yëgu ko. kenn yëgu ko. ah boo nee du saf kenn ñoom ñu naan quatre vingt dix pour cent minorité la boo xam ne la boo xam ne ñooy jël ni ñi en notage bi ñu fi déclenché ñaari yoon def nañ ko fi kenn faalewu leen. mais yéen jàpp ngeen ne seen grève bi seen grève bi amul benn bis bi sax benn bi sax matul. mais jàpp ngeen ne seen grève bi tey amul benn euh, impact daal moonte mburu ñàkk na non du ma ne amul impact du ma ne amul am parce que hmm. parce que xam nga ñoom soo gisee ñu tàmm bis bi parce que am moo am na ñoo xam ne dañu amul farine. Hmm. mais bu fekkoon ne farine am na ah doo sentir grève bi doo sentir grève bi ñi ah, ñi lakkul dañu amul farine mais ñi am farine lakk nañu topp ñu leen ci sax parce que groupe bu ndaw la rek. mais ñi am farine. nee nañu ñi am farine. ñoom nee nañu brioche dorée yi en fait ñoom nee nañu brioche dorée yi rek ñoom ñoo alimenté. waaye Sénégal yëpp non non non ma yónnee la image yi boulangerie yu bëri yu lakk. ñu ngi nii man maa ngi image. d'accord kon da ngeen def benn suivi de cas. topp tànk xool sunu agent ñi ngi ci terrain depuis ce matin. Mhm. fépp euh, gox bu am problème ñu wax ñu ko. d'accord ñi lakk am nañ ko am nañ nombre bi. Mhm. mais buñ actuellement nii li ñu xool. boulangerie yi lakk moo ëpp ñi lakkul te bu demee ba ngoon fi mu dal nii danañu wàccee situation bi vers quatorze heures wala yooyu eh, danañ am niveau bi nga xam ne ñii lakk nañ ak ñii lakkul. <laughs> d'accord mais présentement lii ma yor nii ci données. Uh-huh. ñi lakk ñoo ëpp ñi lakkul. d'accord mais daal ñetti fan euh, dans tous les cas bëri na ñoom ñii boulanger. waaw mais nit ñi aussi il faut ñu changer mode de consommation et de production. mooy lan nit ñi il faut ñu adapté wu. parce que benn groupe bu ndaw mënul jël peuple en otage waaw man mi bu ma jaralee parce que ma lekk mburu dugub daf ma ko war a jaral parce que nit ñi aussi dañu war a xam ne état bi dafa taxaw pour xeexal leen seen pouvoir d'achat dafa faible keneen ñëw encore bëgg ko bëgg a ci pouvoir d'achat bi looloo tax état bi taxaw bañ. parce que mburu dugub boobu ngay tudd sax moom dafa bariwul. wala adduna bi metti na metti goo xam ne. Uh-huh. fi mu toll nii. nit ñi ku leen euh, dimbalewul tamit yërëm leen. waa léegi ñoom yéen ñi nga xam ne yéenay seen tutelle yéen ci yéen lañu bootu lan ngeen fas yéene def ci meññee yi ak ñoom ñi boulanger yi. ñun muy meññee muy boulanger toujours dañuy toog di waxtaan ak ñoom euh, boulanger yi semaine passée waxtaan ak ñoom jam ñaajo meññee itam waxtaan ñoom ñoom ubbi nañu suñuy bunt buñ ñëwee ñu waxtaan te fi mu toll nii ngi continuer waxtaan mi. waxtaan yooyu eh, dàqaluñu ko ñoom kay ñoo def rupture unilatérale. luñ ci nam nga jàpp loo jàpp ne noonu loolu lañ ci nam non parce que dañ ñu bëgg a pousse pour ñu yokk affaire mais nit booy yokk aussi da koy teg ci base yu leer ñu yokkal la mais tegoo ko ci base yu leer indiwoo kayit xam nga yéen ci boppam sax waroon ngeen mun a interroger wu ne mais meññee yi pourquoi ñoom ñëpp ñu jaayee même prix juróom-ñaari yi yoo xam ne bokkuñu personnel bokkuñu charge charge personnel bokkuñu électricité bokkuñu nombre yi ñuy employé ci ouvrier kee am euh, vingt ouvrier kee am cent ouvrier kee am cinquante ouvrier ñu tollo prix te bokkuñu fa ñuy jëndee farine yéen sax bu fekkoon ne yéen a ngi def seen kii ñu ngi wax journaliste d'investigation mais war ngeen xam ne loolu jaaduwul dans une économie normale une économie concurrentielle ku nekk da nga war a am sa prix d'accord léegi kii jënd xool fi gën baax mu dem jënd fa mais alignement boobu parce que entente ak coalition loi da ko tere. Euh, ci waxtaan googule am na woon euh, bu yàggul weeru août gi nga xam ne wees nañ ko benn conseil national euh, de consommation ngeen waxtaanee ci yenn prix yi ak njëg yu cher yi de la consommation plutôt njëg yu cher yi ci mim réew ndax am na lu soppeeku ba ngeen paree ci waxtaan yooyu le waxtaan woowu biñ ko defee ba jël arrêté bi daal di fixé ceeb non parfumé bi diwlin bi ak suukar bi mhm. ba léegi prix yooyu ñoo nekk ci marché bi mhm. am na sax yoo xam ne gën na néew mhm. produit yëpp disponible na ci marché bi marché bi stable na sur ces produits là yi nga xam ne moom lañ jëlee arrêté fi mu toll nii amuñu ci benn problème chaque jour sunu agent yi ñu ngi ci terrain bi ñi ngi veillé au grain comme on dit te képp koo xam ne yokk nga ci njëg yooyu dara dañ la teg daan fii may wax ak yow noonu da loolu nekk na loo xam ne passé nañu ko wan nañ ko ginnaaw fi mu nol nii liñ def mooy ñu gën a am présence agent sur le terrain te loolu ñu ngi koy def fi mu toll nii di saytu njëg yi bu baax a baax a baax mais fi may wax ak yow yow mii sax xam nga ne marché bi stable na am na coow lu fi nekkoon semaine passée muy suukar si ñu ne dañ fee dugal suukar su baaxul maanaam dañ koo poson tey jii euh, lan ngeen am pour wax ci loolu. waaw xam nga euh, am na yoo xam ne fekk yi ñuy tuddee fake news yi. Hmm. ni ah dafa am ñun suñu bopp ñoo ko war a bañ. parce que am na loo xam ne boo ko déggee sax xam ne jaaduwul. Hmm. manta nekk ah. parce que dañuy jël loo xam ne ci biir euh, réseaux sociaux yi loolu tax réseaux sociaux yi xaw a euh, dangereux mm-hmm. dañuy jël loo xam ne dañ koy wax ci beneen dëkk mm-hmm. rek ñu envoyé ko kenn rek kooku daal di koy envoyé mu law te nit ki li ngay envoyé da ko war a xool parce que loo xam ne day yëngalum réew da nga ko war a xool loolu mënta nekk te mënta am fii Sénégal parce que suukar d'abord pour dugal ko fii a ah, mm-hmm. euh, niñ koy waxee sax li ñuy wax euh, comme koy ku yaaji màkk xaw ma nu mu tuddati sax <laughs> c'est la croix et la bannière pour nga dugal ko fi ah ñun ñooy joxe de kii bi autorisation bi mhm. muy déclaration d'importation de produits alimentaires mhm. ken mënu fee dugal suukar te amoo kayit googu mhm. kayit googu ngay présenter douane nga mën a fay pour suukar si mën a dugg fii te suukar si aussi buñ la joxalee joxee déclaration d' importation de produits alimentaires boo indee suukar tamit dañ ciy jël échantillon mm-hmm. yóbbu ko laboratoire laboratoire bi daal di def analyse chimique et microbiologique mm-hmm. su ci paree ci analyse bi joxe résultat yi suukar si baax na mën na dugg mm-hmm. te suukar boobu nga ñuy indil aussi day fekk ne mu nekk suukar boo xam ne fañ ko jëlee ña ngi koy lekk foofu ay dossiers yi lay laaj yëpp sanitaire rek phytosanitaire yi ñu lay laaj ak yooyu yëpp et mu nekk suukar boo xam ne de consommation légale la ca dëkk balu mhm. donc suukar moom pour indi ko fii dafa am yoon booy jaar te yoon bi dafa métti te du ñëpp a ko mën a am. d'accord kon marché bi daal organisé nañ am xam ne dañ leen réserver suukar. Mhm. te suukar benn période bu ndaw la léeg benn weer dong dong la ñuy joxe déclaration bi li compagnie sucrière mooy assurer suukar Sénégal. d'accord Serigne Diaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup. merci à vous.